وخلقناكم أزواجا وجعلنا asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi yéen a ko doon xaar les mélodies du Coran résultats yi génn na yii ñoo war a dem nag ci phase finale yi allahu rabbi nii la tëddee premier kandida Mouhamad Makhtar Diop deuxième candidat Abou Dar Silla troisième candidat Djibril Sow et quatrième candidat Mouhamad Djibril Diallo cinquième candidat Moussa Diagne sixième candidat Mohamed Julde Diallo septième candidat Chérif Sarr huitième candidat Mor Mboup neuvième candidat Jaafar Wage dixième candidat Cheikh Abdoul Moutalib Diagne onzième candidat bi mooy Abdallah Loum douzième candidat bi Baye Niass Et 13e candidat, Mabo Abdoulaye Mabo Dramé. 14e candidat, Alioune Sissé. 15e candidat, El Hadji Mamadou Dramé. 16e candidat, Ousmane Sissé. 17 Sidi Ahmad Ndaw. 18e candidat, Ousmane Nying. 19e candidat, Mbaye Wad. 20e candidat, Mohamed Harouna Sow. 21e candidat, Diaga Makhtar Diop. 22e candidat, Sidi Wilane. 23e bi di Abdoul Aziz Silla 24e candidat Serigne Modou Mbacké 25e candidat Ahmadou Ndiaye Guèye 26e candidat Serigne Hadi Touré 27e candidat Yande Diop 28e candidat Sow 29e candidat Wali Cissé 30 bi Ahmadou Seck 31e euh, Ibrahima Seck 32e Alioune Traoré 33e bi Malick Bachir Dramé 34e Mouhamad Sall 35e bi Ndiasse mbay 36e bi Cheikh Tidiane Samb 37e bi Baba Samba Sall 38e bi Keba Tall 39e bi El Hadji Sow 40e bi mooy Abdoul Wahab Traoré 41e bi Cheikh Diallo 42e bi Thierno Wuri Diallo Mouhamad Hachimi Diallo mooy 43e 44e bi Mouhamad Lamine Sall mbokk yi ñu ñooy euh, candidat yi nga xam ni gagné nañu ci les mélodies di koran kon ñu ngi leen di xaar pour rekk ngeen mën a ñëw fii ci foire bi incha allahu rabbi wa xalaqnaakum azwaajan wa ja'alnaa nawmakum subaatan وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار